ci jamonoy 1880 muy kon lu jiitu sëriñ bi di feeñ ñuy xam taxawaayam ci lislaam ak cër bi ko yàlla sunu borom jox réew mi ñu ne di senegal mi ngi woon ci noteelu réewum France ñu di ko wax colonisation noteel gu tar googu te yàgg juróon na ci xolub nit ñi mar bu tar ci moomaat seen bopp mel ni ku dekki li ko mënoon maye nag lenn rek la mooy am njiit wu ko mat mën a dëgg jéng yi métit woowu ñu fàttali ne weneen métit jiitu na ko diirub ñeenti xarnu ñeenti téeméeru atu njaayum jaam muy diggante boo xam ni tubaab bi dañoo taxaw ci ngacc doole Afrique ci di jaay ay ndawam booleeg tasaare mbooleem li fi newoon di baax doonoon sunu alal li yombal seen liggéey boobu nag. mooy jàmmaarloo gi tubaab bi jàmmaarloo képp koo xam ni danga doon bañ noteel moo xam ceddo la moo xam sëriñ la Ceerno Suleymaan Baal Ahmadou Cheikhou Cheikh Omar Foutiyou Tall Abdul Kader Ceerno Maba Jaxu Ba Mouhamadou Lamine Dramé kenn ci ñoom ku ne da nga bañ ba sa bakkan des Cheikh Ahad Mbacke ñetteelu xalifa bu yoonu murit dolli ci leeral ne lu jiitu sëriñ bi di feeñ fekk na lislaam lu fi yaatu la woon ci réew mi diine tasoon na fépp fu nekk diine nga chariatu mosu fee jóg koo mës a seen muy waaxu kaang fóori la ay doomi soxna rekk a fi ne ñun ñi fi nekk ñépp ku nekk maamam ay doomi soxna la rekk lañ yoo xam ni lislaam lañu daal xencu di ko toppatoo waaye terewutoon kenn ku ne ci sa kër ngay gàmmoo ci sa kër ngay woore sam penc ngay jullee doo fekk kenn kon wax ji sëriñ bi wax wane na kon kenn ku ci ne la nga daan def weesu la woon weesuwul sam lislaam jéeg réew mi am mar wu tar ci am ko am kàttan koo xam ni dana taxaw temm ci jëli fi lii fi ne muy samp gu tubaab bi samp boppam doon buur doon bummi gannaaw dara yënguwul nag tubaab bi gën a wéy ci toroxal gi ak noteel gi booleeg soppi nit ñi ci jikkoom aadaam ak diineem fexe daal ba ñëpp doon gan ci seen bopp ci jamono bu lëndëm boobu jamono bu ciis jooju ci la sunu borom dogale sëriñ tubaa feeñ mu yëkkati kàddoom nag nodd ca kaw wax ne sama borom xamal na ma ni ma wéeruwaay laa làqukaay laa ci képp koo xam ne bëgg nga mucc tey ak ëllëg mu jur nag riir gu nit ñi riir jëm ci moom riir gu settewul kenn ñi amoon mar wu tar ci yàlla ak ñi nga xam ne tubaab bi moo leen xañoon seen guur ñëpp jooyal seen yaakaar jëme ko ci borom fit wi nga xam ne moo ñeme dëkk tubaab bi bëccëg te nëbbuwul buur googu nit ñi buur wuti ko ak yaakaar bu rëy googu nit ñi am ci moom ba dikk wax ko jëfe ko jur na njort lu ñaaw ci moom bàyyikoo ci tubaab bi rawatina bi nga xamee ni sëriñ bi teel naa wane bu fis ne lenn rek la def muy liggéeyam mooy yeesal lislaam ak lu mu ko mën a jural ndax mooy diine réew mi ndax mooy aaday réew mi ndax mooy cosaanal réew mi loolu dolli na njort lu ñaaw li noonu lislaam yi amoon ci moom ba tax ñu siiñ ko fang jàppe ko noonu tuuma ju ne ñu teg ko ko ba àgg ci bind ko ku ne mën cee teg bëtam ba bisub tey bii nag firnde na ci ci fukki fan ci weeru juillet 1895 administrateur de cercle bu Ndar nekkaloon fi tubaab bi ñu di ko wax Leclerc defoon na ab rapport di jiiñ sëriñ bi juróomi mbir li ci jëkk mu ne sëriñ baa ngi waajal jiyaar ànd kook ay taalibeem te loolu mën naa jur ay yëngu-yëngu diggante Jolof Njàmbur ak Kajoor mu teg ci ne sëriñ Touba am na déggoo gu mu déggoo buur Jolof ngir yëkkati jiyaar te loolu bu nawet bi wàccee ci la ko nar ñetteel bu mu wax ne sëriñ bi fàggu na lim bu tar ci ay ngànnaay diggante fetal ak i bal ñeenteelu mbir bi ñu ko jiiñ ñu waxit ne sëriñ bi am na ndaje mu mag mu mu woote ci këram bi su tamxarit dëppook ñeenti fan ci weeru juillet 1895 juróom-ñaar téeméeri nit teew nañ ci li ñu mujje nag mooy ñu wax ni sëriñ bi am na junniy nit ñu aju ci moom ñoo xam ni moom rek lañuy déglu diggante kajoor njàmbur jolof ak ngiij boole yenn buur yu am kàddu yoo xam ne jekk nañu ngir ànd ak moom bés bu jógee ngir jiyaar ci lii de lañu sukkandiku ba tax ci fukki fan ci weeru août 1895 ñu dem jàpp ko ngir yóbbu ko génne ko réew mi muy sababu saa yi waral yoonu géej gi